sénégalais doon une démocratie d'opinion accomplie c'est-à-dire démocratie d'opinion bi Sénégal doon Afrique daf ci teg bët addina bi teg ci bët ci ni ñuy doxale ñun suñu biir réew fii bët bu set nit malal mi su ko neexee xëy li mu xalaat ci président mu wax ko li mu ko ci xalaat yëpp ba parfois même ñenn ñi ñu déraper on a de problèmes peut-être parfois de contrôle de cette liberté là donc mënuñu fexe muus ba mën a gëmal sénégalais yi ne Sénégal dañu nekk dans une dictature ou dañu nekk ci benn réew moo xam ne kenn sañatul marche kenn sañatul. mais li mu wax gënul woon yomb nga baal ma ma ma ma bu ngeen leeraloon li sëy doon wax. du ñu jàll ci leneen mu bañ nekk. polémique waaw waaw d' abord. dinaa tontu ci loolu nga wax noonu. peut-être pourquoi pas. Mm-hmm. ça peut une opinion. Mm-hmm. mais loolu tamit du question de fond. li ñu war a wax kay. mooy su nee d' abord su nee d' abord. Mm-hmm. président ci discours am waxul gouvernance si wax na ci encore une fois wax na ci ba fàtte ne les rapports sont réguliers il y a des gestionnaires yoo xam ne ils sont actuellement en exercice yu ñu épinglé ñi ngi remboursé il l'a dit dégg nga ko si il a parlé de gouvernance et il n'a jamais arrêté de parler de gouvernance mais les questions de gouvernance et de transparence on ne le décrète pas en 24 heures c'est un processus moo mooy yeggale ci benn niveau boo xam ne peut-être c'est un niveau idéal mais encore que amul réew booy jël sur les questions de gouvernance où il y a pas des questions de corruption il a pas des questions de transparence et de redevabilité day am mais ñun nous sommes dans une voie te instruments yi natt nag yow da nga far da nga féete man ma féete fii mun nañu am suñu opinion nationale mu am des clivages mais am na ay instruments yu nattu gouvernance ci àddina bi ñooñu lañ mën a déglu mun naa ci joxe ñett démocratie rank la fondation Mo Ibrahim ak Transparency International sur l'indice de la perception de la corruption les pas yi ñu def de progression en qualité et en rang sous le régime de Macky Sall jamais le Sénégal ne l'a fait loolu mooy li teg si wax ça si loolu loolu du loolu du man loolu du man du yow Mo Ibrahim on est entré dans le top 10 on était dans le top 20 ou le top 25 hmm. indice de perception de la corruption nous sommes toujours en zone rouge hmm. c'est vrai mais la marge de progression bi ñu def depuis que le président Sall est là. et on l'a jamais eu déet sëñ bi rek. Mm-hmm. ça veut pas dire qu'on doit être minimaliste et dire que tout est bien waxuñu loolu. mais c'est des questions yoo xam ne ça doit pas être politisé parce qu'on manque de programme politique c'est des questions yoo xam ne liberté d'expression bi dañ ko ciy jël la place des femmes dans la gestion la parité euh, l'accès au foncier des femmes dafa bëri ay critères yu ñuy jël yoo xam ne mooy montré Sénégal sur les principes de bonne gouvernance et de transparence yoon bi mu jël mais gëwuma man très sincèrement que le Sénégal dafa am problème mu liberté le Sénégal au contraire à chaque jour démontré et pas simplement parce que c'est le régime du président Macky Sall qui est en place mais parce que nous avons une société civile dynamique regardez comment tout à l'heure sur ce plateau parce que am nañ une liberté d'expression irréprochable des journalistes et des observateurs ont critiqué la politique publique en matière de covid fii la mën a am dafal nag déglul rek loolu fii la mën a am mënul am à côté chez sur le continent yérim ci affaire le continent lu am na réew yu mu fa mënta am ça c'est le legs des pères fondateurs politiques qui font que ñun suñu démocratie waruñu natt suñu bopp ci ñooñu désolé déedéet war nañu déedéet li ma bëgg a wax waxuma ñu natt suñu bopp ci waaw déet waaw man de waaw même égali <laughs> li ma bëgg wax wax ma ñu natt suñu bopp vers le bas dama bëgg ne ñu xam suñu bopp suñu xamee suñu bopp dinañ xam li ñu war a sàmm ak fi ñu war yo bu débat politique bi parce que bu nga gëmal ñun suñu génération moi j'ai des amis qui sont à Y'en a marre il y a beaucoup d'amis dans le club ah des amis à Pastef Sonko ñoo bokkoon koñ on a grandi ensemble donc on connaît les vrais sujets le sujet n'est pas une question de liberté parce que fii kenn mënul imposer sénégalais yi dara da nga wax am programme politique le président Macky Sall agir de façon révolutionnaire transformer les vies la vie des Sénégalais sur certains aspects transformer la cartographie des infrastructures du pays comme vous l'avez jamais fait et les déet dama daana rek ba yem foofu loolu moo tax en 2019 quand il s'est agi d'aller aux urnes urnes yi nga xam ne journalistes yi dañ koy wër observateurs internationaux yi wër ko sénégalais yi jël seeni xob sànni ne ñun kii lañ tànn donc loolu c'est une expression démocratique qu'il faut accepter ça ne suffit pas c'est pas simplement les élections c'est aussi beaucoup d'autres choses mais li ma ci bëggoon wax pour daaneel si mettre Sey sur ak euh, Tall Tall li mu wax dafa ne chef de service ya nekk foofu nekk luñ fa lu seen bopp di luubal xaalisu réew mi di def seen poche kii dafa ne jël nañ téeméeri milliards ak lu topp jox ko Sénégal ci wàllu mbëkk mi waaye xaalis ba état bi da ko luubal ci li justice nag su mbir mi nekkee ci loxoy yoon normalement sax wax ji waru cee bëri waaye ci li ma dégg ñun ñu dégg ko mooy dañ ko woo pour laaj ko loolu mu wax fan la xaalis boobu dugg ak kan moo ko jël loolu de laa jàpp ne lool la su dul loolu li ñu tamit ñu wax ma ne du loolu rek waaye man loolu laa dégg allez bismillah d'abord euh, ci démocratie mhm. activité